bëgg naa la bëgg ma la loolu jarul coow kay juboon joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Guigui Diallo joyeux anniversaire. est-ce que. Eh, tey fii nga ci sëñ Abdallah Diouf laa jaar mu def ma nii macha allah ni ma nag demal ci am soo bitik nga solal fa gii am soo bitik ma ca lan 26. Hmm? xam nga ko est-ce que yaa xam li ma bëgg barki rasulaay waaye yow Diop toogal toogal ma laa da benn affaire yow Diop yow noo xamee tey la sama anniversaire yow mbay hmm? dabar lëjal ma rek anniversaire ba bu la fa kenn jiitu tey mbay mbay daf may espionné de kii gi ma def baax na. tey xoolal dama la dama am envie lalal la rek macha allah. kii doo ma dimbali sa sa gémmañ gi nga tegal ma ko ci sama loxo bi rek. un petit ah. <laughs> may naa la ko nag tey rek la nag bul ëppal nag ah bëgg nga lu yomb trop tey moom ma lay may pra gratis toggal ma servir la nga lekk naan ba suur et puis tu rentres chez toi. kii gi mën naa laa laaj benn affaire rek. Hmm. kii gi man dama laa bëgg sama biir xol. maanaam dama laa nopp nopp billaahi ah <laughs> am nga ci droit de parce que jigéen laa ah yow tu vois <laughs> ah eh, eh, damay xoolal daqoon nu tufle ah ñu ngi jég lu père sëñ bi mu xat sëñ bi waaw yow mbër nga may saf de xanaa lutteur nga waaw mbër laa koy hmm, mbër yow foo toj tey laa wax ah laaj nga ma lu am solo de te ti woon naa loolu nga laaj ma ko gis nga luy këralee xubooy coñaay mbaab lool ngël barasaan njib njibam njéet ba ci gaawaan yow ay eh, arrondissement nga toj arrondissement nga toj capital bi la ñuy laaj loolu nga foog rek ñun fii loon wax ndakaaru njaay waaw looloo tax nag ma bugg ñëw ndakaaru gi wan leen ni xoolal kenn ki la muy man mii waaw te kenn nag moom a gën a tax a ñëw fii kan ngay wax ban bër ngay wax xanaa mbër bi amul tur wala da nga ko kan la ki ngay wax. xanaa boo ñaaw mi ngeen di wax. boo ñaaw ngay tudd. waaw oh, boo ñaaw day dara ci man egg suuma wii. kupp kale gaa ngoo kupp kale yooyu nekk dara yi def nii kupp kale gaa ngi noonu daj dëpp gi. xool tey laay maa la dàq boom moo ma ñandoo te ma ñandu la man. waaye loolu ci biir doo bokk. waaw dama lay wax rek. ci nit doo bokk ci nit doo bokk. mbëri ma ci ba léegi la. waaw léegi sànq ba léegi maa ngi lay xool. waaw maa tey. yow yaay kan sa paxi bakkan ne fu jaan dëkk waaye yaay kan yow ba sa borom jox ma sa bët yi kaar macha allah ma war cee mën xool nga dugg ci gargol bi ni kenn du la xool yow ku la fal ay yow da yaa bari tiitar te wow le yow yaay kan yow ñàkk koo fayda te ñàkk jom yow ba nga àndeeg sa moroomu doom ji kii nga xam ni taree saalaam yow loolu du gàcc réew maa ngi lay xale bi nga xam ne mineur la sexy jekk taille fine pose ongle monte xef monte ange ba monte ah, waay waay kan yéena ma xajamal eh ton problème il est où xam nga sax yabaate weesuwul fekk ay nit taxaw nga naan da nga leen ay fii ko fi sàcc téléphone gorgor gi ba ma commencé ba léegi gis nga fi kenn ko fi sàcc téléphone ah eh xoolal xam nga lan la ñun fii sama rom na wu fi ah waxal li ngay wax gars yi dañuy dem góor gi tee nga toog. ah mais mais mais téléphone bi. yaa tooguma yow mi ngi feex neew fi toute façon man dinaa si am lu ma leer du yow nee nga fii nga ko bàyyi. voilà doo doo doo seet sa téléphone. da ngay wax sa sa téléphone fu mu ne ñu seet la la ko. ku doon laajte Faly Ngoy ñëw na. Eh? mi ngi ci moom. mi ngi ci moom kay. téléphone bi mi ngi sa poos sa poos lay sonné yow. parce que mënoo décroché mënoo ko décroché bañ a wax waxal rek waxal. <sighs> yàlla. seen solo yu rafet yi yëpp da ngeen di ñëw di sàcc liggéeyoo leen. ma ay waay tey nga tey nga bañ a tëdd yow la. yow tu te pour qui yow nga dugg fii nga mel ni yàmb ci kaw nit ñi lan la. tu peux pas rester tranquille xanaa gisoo les places pour les clients. nekk fi di dugg fu ne mel ni jinax tu te prends pour qui. ça va pas. bon man maay ah, agent bi nga xam ne fi moo fi nekk agent fournitaire. nga ni. agent lan. mani man maay agent volontaire bi. loolu kon loolu la agent volontaire baa ngi nii. agent sanitaire la wax. ah kon. maa fi ñëw pour saytu maanaam lekk gi. agent sanitaire. waaw agent euh, euh, sanitaire. waa xoolal da ngay jël place nag toog ma servir la noonu lañuy def. bis bu dellu si moom. dafa méttee su guddi gi neel salaw lu fay xew xale bi la yaaw. yow yaa ma tere yaa ma tere nelaw bu guddi ne salaw oh wooy wooy bul ma bul ma jooy loo bul ma bul ma jooy gigi joyeux anniversaire wax na nga naan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 lii rek ci père plate maa moom lii. joyeux anniversaire. ah anniversaire d'aujourd'hui la ça se passe bien. Euh, Guigui franchement. nanu ko def goo gis dañ koy waxtaanee du ko jiitu. yaa konkoo. Guigui. billahi je t'aime. mais. Hmm. dara jëy jëy laa ne Fall je t'aime. Ah. bëgg. mu ma am lu sut mu am lu gën. doo eh, yow mën nga maa bàyyi wala waaw mais bàyyi ma. mais non eh. eh eh, eh, eh da may bàyyi nag. bu ma tàccuwaat nga mel ni borom ñaari tur yooyu. nag ma laal te. bu ma tàccuwaat de. yow na ma sa loxo laal. ubal ñam yi. gi gi ñam yi di tuuf li rek. yàlla def na fii mu ñëwee baax. cum gi. booy ñam da ngaa xam kii. non kii xaw ma ko si ma ko. kii xaw ma ko muy un. Hmm. ku baax da ngaa xam kii. kii mooy kon kii fan la toj. booy ñanga ngi que nga doon bëril ba courant ba coupé ñu ne doon koy defaat mi ngi nii. kon ji nga wax nga de. booy ñang mi nga soxla ci dakaaru njaay mi nii. ci kala de man waxuma la booy ñaa de Baye Ndiaye laa la wax Baye Ndiaye moo si soxla ñooy. eh maa ko maa fekke jarul wàccee ay tuñ yëkkatil tuñ yi. ci gën a mën a fen. yow kii mooy waaw yow kii buur géwél piir kii sotti maa la. kii buur géwél pire la kii fans la kii yooyu toog kii fans la yow yow kii day dem jamono kii kon boo nee def yéen ci jàmm yow Samb yow moom yow foo toj yow ah man kat man ay man tojaguma fenn de ah nga boole ma gars yi nag ma am mais comme yow champion nga te instant bi gis mën a gisee ni sa yam tàng na te man instant waaw fa laa jóge fa nga ma jëlee waaw ñëwal ni ñu may ko ñëwal ni ci digg ku am dara mooy maye de waaye fii dara nekku fi de. non il faut ñu maye ko nag de. déet parce que foofu dara nekku fi bàyyi xoolal. non da ngay ñëw ne ko amuñu de xoolal nekk leen ci jàmm bàyyi. Oh, mais yow bul dem de Diop jàppal am leen jàmm déedéet bàyyi nekk leen ci jàmm quoi. Eh, eh, booy na leen jox ngeen coow booy na nga ñëw sama kër nag de tapis rouge laa lay dalal. Eh, comprendre de c'est-à-dire. bàyyi ni nga restant bi xaalis bi lépp. doyen. mati da ngaa def. ah madame noo def. ça na mu naa la. waa gëj nañ gisee. yow dañoo dëkk ba pare duñ la gis doo génn. <laughs> ça va. bien merci. colonel Kane. ça va madame Ndiaye. bien merci. ba yaa ngi ci jàmm. ça va ça va ça ngi ci jàmm. nga ne colonel Kane. colonel Kane. maa ngi jégalu nag. ndax man vraiment yu ñàkk classe yi duma koy def waaye erreur rek. mati ah, xam nga jalousie jigéen. mais maa ngi jéggalu de vraiment am naa kersa. non waaye nga ma colonel kay day nelaw. waaye woowu mba Kumba mën nga ko. Kumba li mooy dafa bari. benn rek ma ci ñoom. muy ban. xam nga muy ban. voilà. xam nga ma yor li nga ma yor mel. ma yër li nga yor. boobu la ma ca lekk ci ay kado dafa bari. Ah, léegi nag yëral li nga yor yëral li nga yor yëral li nga yor ci li nga yor. waaw kasa gën la waaw kasa li allahu akbar kabiran. ah. Eh, wal bu ma xool kat. yow kon daal dañ laa daajal kaaf fi nga may saf ginaar gu périmé. mi ngi nii. lenn de dinaa la ko xaman mhm. jéeg laa boo xamante ne. Mm. ku mën nañ maa dëkk mais daan ma moo yombut. maa la ko wax ni ngay def ak sa. xool bu sax bii ngay nuroo ku soqi ko ci toolu batañse. yow de boo ma fekkee kër ga kuntum bi la zaan mii la. Eh. dana la doyeeti tama ci bu. sa bopp kuntum ñu la saalimiina lan lay ñuul sama gëtëm yow.